kon ñu ñëw ci paas ñaareel bi nga xam ne moom lañ doon wax ci sunu première xaaj bi ci wàllu organisation bi yoon wi war a organiser wu ngir ne kat ñi nga xam ne bokkuñu ci diine yi wala sukkandikuwuñ ci diine wala attiwuñ ci diine sax organiser organiser nañ seen bopp mboolem luy nuroog am mouvement ci àddina ak ña ko bokk dañoo organiser seen bopp te boole googee ñu boole seen bopp damaa wax ne noonu la ko yàlla sant waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu kon bu fekkee yàlla digal nañu ko ñu lànk ñeneen daal di koy def jëfe ko te yàlla sant leen ko kon ñun ñoo xëtt ndigali yàlla yi kon nag loolee dara duñ ko mën a taxawal te wax naa leen ne leen état moom ci wàllu boppam dafa organiser boppam ni mu organisé boppam mooy dafa am ab constitution boo xam ne si réew mi ci lay àtte woo ci loi yi ñu fay jàllale ak lépp lu ñu fiy sos ñu jaarale ko fa ñu nga xam ne ca loola day am sañ-sañu di ko doxal ci réew mi loolu organisé moo ko may. loi bu ñu bëgg a modifier ci référendum lañ koy jaarale su ko defee ñu jàllale ko fa bu jàllee bu ñu amee majorité daal di koy. activer foofa ci ci fa nga xamante ni si mooy constitution bi assemblée national mboolem luwaay réew mi moo koy càmbar lu président de la de la république bëgg a jàllale ci assemblée la koy jaarale ca kaw ba mu fa amee majorité mu jàllale ko fa ñu wate ko loola jàll loola mbooloo ko def te loola organisation koy def état bi am na ay ministre am na premier ministre am na ministère de l'intérieur am na ministère d'état ministère bu nekk ca secteur ba muy liggéeyee ci réew bi nommé na ko budget bañ koy woteel ci assemblée nationale lañ koy lañ koy wotee fa lañ koy jàllale ñu financé mu dem liggéey état am na ay protocole yoo xam ne kenn mënta am aspect jaar dem ca moom direct du ci mbokkam nga koy jaare du ci magam du ci rakam du ci ndayam du ci baayam du ci doomam ba ci jabaram ci yi réew mi tëgg ñu yóbbu ko ca constitution ba jaarale ko assemblée nationale ca loola nga mën a tënku jaar ca ba dem ca moom te bala nga caa dem danañ la segg yirife la ba boo fay dem ñoom danañ xam condition ya nga fay dem loola organisation moo koy kon kem ku bëgg a gis président de la république da ngay jaar ci Portugal ba ñu jël audience nga jël audience ñu enregistré la bu fekkee mën nga koo gis ñu ne man nga koo gis gannaaw bañ ko ko joxee bu fekkee bëgg na nga gis ko mu ne na ñëw bu fekkee bëgguñ bëggul nga gis ko ñu récité ko te boo fa ñëwee tak temps ba nga fay def dañ koy bind minute ya nga fay def la ngay wax te boo fay dem lépp luy tas secret doo ko yoraale doo yor dictaphone doo yor portable doo ko mën a enregistré it boo génnee dikk naan nee na ma lii laa la ma loolu organisation la comme nag ñi nga xam ne ñoom tënkuwuñ ci lislaam ñoo organisé seen bopp noonu astamaak ñun ñi yàlla wax ne wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu yàlla ñun la ko digal ci bu nu nas woon ci génn buum tey di tënku ci menn mbir organisé yi sunu yoon yii ci noonu yi tey jàpp naa ne tey jàppal ma bàyyi du ci am yabel du ci am ndax dana fekk lépp lu réew mi soxla fekk na wala lépp lu yoon wi soxla fekk na ñu nasu ba nekk wenn say àndandoo def loola loola daal di tegu ci yoon ñu ànd di jaamu yàlla ànd di liggéey te loolu ki ñu ci doon sowe setub sëñ tubaa setub sëñ tubaa boobu mooy kan mooy ki ki nga xam ne daa bokk ci ñi sëñ tubaa doon ñaan naan nay doon sët yu teey sët yoo xam ne si danañ mën a ah mottali lii nga xam ne walla wala danañ yeesalaat lii nga xam ne mooy sunu diine jii nga xam ne Seydina Muhammad mooy raïs bi lil Moustapha nawaytu maa yi jaddidu sunnatul xaraa wa inni ahmadu bi sëñ Tuubaa doon waaye mu wax ne surriyatan tayyibatan tu jaddidu nahja nabiyal Moustapha tëj tahit sëñ Tuubaa ñaan na ko yàlla te yàlla lu mu ko ñaan dana ko ko may waaye mu dellu ñaanaat ko ci weneen bayit ne wahab lana surriyatan tuddiimu alhamala saaliha yaa xadimu yàlla may na ko ñaan ko moo tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci ak jub nekk ca la sëñ Touba nekkoon ñooña rek ñoo bokk ca ñaan googu keneen koo xam ne nag nekkoo ca loola xamal na yow ñaan googu moom génn nga ci kon sëñ Touba tënnu la ci ñaan googu ndax yàllaay maye te sëñ bi lu mu ñaan yàlla dana ko ko may ñooñee nag wuyu ñaanal sëñ Touba googee ka ca jiitu organisation bii moo ko jëkk a taxawal ci yoonu murit te mooy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne doomi Cheikh Mamadou Moustapha awalu xalifatul Cheikhul Khadim ak soxna Fatma Thioub bi nga xam ne boo ko toppee Ahmadou Makhourédia mi ko jur saa xewar soxna Mbaye ko jur moog Lat Joor ñoo bokk bàyyi te bokk nu sëriñ Serigne Cheikh Mbacké moom buntu yiñ ko war a jaarale la nañ ko waaye lu mu taxawal ci yoon wi ci ngor la ko taxawale ak gëm yàlla topp sëñ Tuuba loola nag tey ji jàpp naa ne amul kenn koo xam ne si warul waxuma laag nag ku bokkat moom kon kooka bu jógee jël yitteem fekk ayub alxuraan bi mu naan waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu na ngeen ànd ngëpp ci buunu gi yàlla gi te bu leen tàqali ko mu dégg aaya booba daan ne na ci jéem a taxawal nag li nga xamante ne si mooy mbooloo mu nasu ci genn buum ngir liggéeyal sëñ Tuubaa te mooy lan yaa rabbi ijxalal muridina maha fi hisnakal hasina wasam la ijmaa sëñ Tuubaa wax loolu mu taxaw njëkk taxawal loolu pour bëgg a booleel sëñ Tuubaa taalibeem yi ci genn buum ñu nasu muy daayira mu taxawal ko ci 1941 tudde ko diiwaanu muridina fi xidmatu xayr mursaliin ci kanamu waajuram ak kanamu ay baay taxam Cheikh Mamadou Moustapha fekke na ko Cheikh Mamadou Fadal fekke na ko waaye Serigne Bassirou fekke na ko ak ñi nga xam ne topp ci Serigne Bassirou ba ci seex Cheikh Mamadou Mourtada fekke nañ dayra boobu dayra boobu it la doon sabab bi Serigne Cheikh defu ko woon ngir mbooloo mu muy dajaleel boppam ngir wane na dama ëpp nit ñi xam-xam lépp ci liggéeyal sëñ Tuubaa la ko teg ndax dafa jiitu woon àddina ay seekal yi seekal nga xam ne fa mu doon déggee ko gisee booba àggagun fay moom ay kilomètres la la leen ci rawe woon loolaa tax nag mu daan jóg di dugg ci àddina bi di wër di xool borom xam-xam yi di jëflanteek ñoom seet lañ baax le mu ñëw installé ko ci réew mi waaye bala ko def na fekk organisation am bu mat sëkk akuk bennoo akuk déggoo ba loolee bu ko indee dana mën a jàll nga xam ne kon saaru ab assemblée nationale la doon créer Serigne Touba ci biir Touba. la ci yéeme mooy daayira boobu ba mu ko taxawalee pour mu dëgëral ba état man koo reconnaître jàllale nañ ko ci constitution bi ba validé nañ ko gannaaw bi nag lañ taxaw defaraat référendum ne dañuy changer loi bi ndax mayituñ benn bànqaasub l'islam boo xam ne danañ la mën a dugal ci biir constitution bi tey lu indil islam problème ci biir Sénégal loolu moo ko indi waaye daayira sëñ Cheikh bi moom activé nañ ko ci li nga xamante ne si mooy constitution bi moo tax mu yaatu di dem bi bitim ndax su dul woon loolu tey jii lépp luñ fi bëgg taxawal état mën na koo dindi waaye mënatuñ koo dindi moo tax bennoo gis nga li muy jëriñ daayira boobee lan la ci sëriñ Cheikh Mbacke jublu nekk ab ensemble ci biir Touba fa la ñuy nase fa la ñuy noccee luy doxal yoon wi lu nekk foofu lañ koy waxtaanee bu boobaa it du topp aw askan sëñ Touba jur sa baay sëñ Touba jur ku fay ñëw dangay indi compétent jàng mu leer nañ ñi nga fay jàng boo la neexee nga sant Dramé wala nga sant Guèye wala nga sant jaw wala nga sant Seck wala Mbuub wala Lëy wala sant mu mën a doon toppatu sant borom xam-xam lañ soxla daal boo xam ne sii ab jullit lay doon te ab taalibe lay doon su ko defee nag dayra boobee ba mu ko tëgee waajuram moo ci njëkk dagg carte mu def ko président sëñ Fallou dagg carte mu def ko vice président moom mu nekk secrétaire général bi sëñ Bassirou mu def ko stand islamique bi tribune officielle bi sëñ sëñ Modou dem mu def ko li nga xam ne mooy moo yore stade islamique bi ñeneen ci des ñëpp sëñ Mbacke Diouf ñoom mu def jox leen li nga xam ne mooy wàllu xasida yeeg yooyu ñu koy organiser sëñ Modou Awa Balla sëñ Cheikh Awa Balla ñëpp ngi woon ci biir daayira bi benn daayira dong la jëmmale doon sëñ Touba ndax bëgg boole njabootu sëñ Touba gépp ci génn bu ngir bëgg na tuubaa gi bu ëllëgee fu Madinatul Munawwara taxaw mu taxaw fa te sëñ Touba ñaanoon na wàcc xal bi daara yeekal Madina barakatan wa kaabatan mashun ñaanoon na ko sëñ Cheikh dégg na ñaan googe tournoom bi mu doon def ci biir àddina bi yépp xool li nga xam ne mooy doxal addina bi mu ñëw fexe ba installé ko sëñ Touba ci biir Touba waaye nii nga xam ne dañ koo tasaaree mbooloo mi àndatuñ doonuñu benn kenn ku ne xëcc ko ci sa kër tuddeel ko sa bopp sa turu bopp ñuy dajale alal di la jox ngay def ci sa soxlay bopp taxul woon sëñ Cheikh Mbacke di ko def Serigne Cheikh mbooleem loo xam ne si ab état da koy jariñ am réewam Serigne seex tëggoon na daayira bi ngir mu di ko jariñ yoonu murit nga xam ne yoonu murit du tënku ci genn kilifteef du du soxlaal kenn dara lépp moo koy deful boppam ndax mbooloo maa ngi fi xam-xam baa ngi fi waaye alal jaa ngi fi nga xam ne daayira yooyu dafa waxoon ne fu daayira mën a nekk ci àddina lépp luñ liggéeyati ci keesu daayira boobu lañ koy wersi nga xam ne fond bi yoonu murit di liggéeyee ah ci fonds boobu lañu koy jëlee ndax gouvernement bi am na fonds boppam am kees noire lépp lu muy nattal ministère yi ca caisse googu lañ koy tippe waaye boolem banqaas boo xam ne si juddoon na ci yoonu murid buy xam ne si liggéey Tuubaa la tax a jóg ci budget daayira boobu ci lañuy jël la nga xam ne moom lañu lay jox ku mel ne Safinatu Amaan tey la nga xam ne moom la doon liggéey war koo soxla ci ay oto soxla ko ci matériel ak lu muy tabax ak sécurité ci budget daayira boobee lay jóge lu mel ne maa u raxmati la muy soxla ci luy doxal ndoxum Tuuba ci yaatal ko ak yàkkale ko ak xëcce ko fu sore di ko andi la cay dépassé ci alal ci bit sëb dayira boobu lay jóge marché occas gi fii mu nekk nga xam ne ressource bu bari moo fay am recette ba ciy génn ñoom ñoo koy téyal seen bopp dugalaat ko ci keesu sëñ Tuuba dañuy dem ba ci barabu sëñ Tuuba bi yii nga xam ne sax ñu ngi koy siyaare alal ja cay dem day ñëw duggaat ci ñoom nga xam ne ci la ñuy amee fond boo xam ne lépp lu sëñ Muntaxa waxate ni da ko bëgg a def lu ci Touba ca foofa la koy jaar organisation tuubaa bépp ñoom ñoo koy téyal seen loxo xalifa bi fa mu toog lay toog dañ koy noppal Macky Sall mii bu jógee woon tey ca pale bee bëgg ñëw ne day ñëw Touba audience daayira boobee ci ñoom lay jaar fa lay jëlee audience na nga xam ne kuy ñëw ci moom day jël audience ndax sëñ Muntaxa mii mënta tëb tëb dem ca Macky Sall fokk lu mu doon doon doon am am am cër dana am ñu mu woote dana am danañ ko jëlal audience. te Macky Sall mii buy dikk Touba amul kuréel gu muy jaar ay nit ak boppam lay tànn ak ñenn ci kilifa gi loola nag tasaaroo ko waral waaye cër bu nu ko jox bi ñu jox sëñ Muntaxa ko war a gën a for te loola la sëñ Cheikh Mbacke bëggoon tey bu daayira booba déggoon ba taxaw ba dëgër ba dëgër ba dëgër lépp luy doxal Touba ci xol lañ koy jàpp sëñ Muntaxa lu mu bëgg rek daayira booba la koy wax ñu daal di koy allé ña xool ñi ko war a mën a def wàllu assainissement wala éclairage wala infrastructure ba ci raay bii nga xam ne sëñ Modou Moustapha indi woon na ko daayira boobu ñoom ñoo koy téyal seen bopp ndege ni fekk na kon ay tramway dana bari ci biir Touba yoo xam ne si yii mi dawee ci Europe ni la fi dawee te ci raay boobee moo ko yur bu boobaa it dédommagement yi nga xam ne am na ci yi nga xam ne maanaam ñoom français yi ñoo ko xañoon yoon wi ba jaayi leen raay bi lu ñu leen wër te jaayi teg leen ci yenn conditions yooyu daayira bi danañ dem ba topp ko ba lañ ca war a am danañ ko dem récupérer indi ko ndax yoon wi xam-xam a koy doxal ay jël doxalu ko xam-xam boobee nag ci jiitu mooy sëñ Cheikh Mbacke mbooleem nag luy jëm ci wàllu transport it danañ ko teg ci condition yu baax yoo xam ne si dayre bi moo koy réglé Touba mooy raw Madinatul Munawwara bu boobaa kenn duutu soxla dara tàllal ay loxo naan ñi ngi laaj nangam buñ ko dajalee ñii lekk ñii dem bu boobaa it kër sëñ ba ñenn du fa dajaloo di fa wut place ndax ña fay wut place ñëpp sëñ Touba yóbbuwu leen fa ña fay rang dajaloo muy ay sëriñ muy ay taalibe sëriñ Tuubaa yóbbuwu leen fa nañ waxante dëgg ñu ragal tàng dong te bëgg lu yomba leen fa yóbbu alal ja taalibe yi dajale ñu dajale ko di leen ko jox wala ñi ciy luubal wala ñi ciy baara yëgoo kenn ku nekk di ci jël dem di yóbbu di ci faj say soxla képp moo leen bàyyi ci kër sëñ bi moo tax duñ fa wax dëgg te dañuy jël turu xalifa bi dem di ko jaay kenn ku ne di ci watu sañ-sañ bu ñuy yëkkatee ñii ñi daaneel bu ñuy daanelee ñii di jéem a yëkkati moo tax dara du sotti mbooloo nag bu ñu dajaloo ba toll nag état bu ñu organisé wul seen bopp dara du sotti waaye dayre boobu loolu moo doon taxawaay bi nga xam ne lu mel ne lii marché Ocass fii marché Ocass nekk tey dayra boobee bu ñu demoon tey ba am fond ba ñu war a am dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg marché Ocass ñoo koy taxaw taxawal def ko centre commercial bu mag tabax ko ci seen alal dagg ko ay kantin ni ko Europe gi di defee ci Carrefour yi. ak li nga xam ne mooy Auchan yi ak li nga xam ne mooy mel na Coop yi ak Konad yi ak Lidl yi ak affaire yi noonu ñu organisé woo nga xam ne ay bitig bitig ngay nekk ci biir kon bu boobaa dayre bi ñoom ñooy def noonu marché occas tur wi ñu koy tuddee yëpp dañ koy décentraliser ci dëkk yi ci biir Sénégal dëkk religieux yëpp ak dëkk économique yëpp dañ ko fay def nga xam ne ci société Touba lay liggéey noona it dañ koy def ci transport bi yii daw yoo xam ne ay urbain la ñu doon ci biir dëkk bi ak yiy daw di génn di dem biti ak yiy dem aéroport ak ñëw bu boobaa yi dañ ciy déggoo ak état loola nosoo ko man ak organisation recette boobee la ciy génne dana tax ni baytul maal amee nga xam ne day satisfaire bépp problème boo xam ne que nii nit am na ko ci màkkatal mu karam ci war a war a dund te sa doole matiwul na la baytul maal di satisfaire noonu la Sëriñ Tuubaa di amee baytul maal ci dayra boobu nga xam ne kenn ku nekk condition ya nga fay ñëwee danañ ko mën a xool ba mën la caa jàpp ci muy ci wàllu liggéey wala wàllu ndimbal danañ am fond boo barab boo xam ne si képp kuy génneti asaka ci communauté mouridisme foofu nga koy indi ñëw def ko fa nga xam ne doo ko tànn di ko joxal sa bopp kenn soo ko dikkee na ko lislaam santaane noonu lañ koy séddale lépp ci fond ci fon boobu lay ñëw ci organisation boobu bu boobaa tamit kenn ku nekk da nga mën a dem gor sa àll dem liggéey yi te xam ne kenn ku nekk la lay jariñ yaa koy liggéey sa bopp waaye ëdd yi sëñ Tuubaa yi kuy toog di ko xaar ba mu teelal liggéey bis dana ñëw boo añee doo doo reer bis dana ñëw boo reeree doo ndékki ndax toog di ko xaar wóorul te taalibe yi fi ñu koy dugal xam nañ te gis nañ ne yàqu-yàqu yii bu jëmee kanam ku ci wékk say mbir rek bu yàlla danga danga dem wutub ëllëg dem bay te bu boobaa dana weesu bu boobaa it ñëpp dañuy dem liggéey ndax toog ci kanamub sëriñ toog ci kawub sëriñ bokk ci entourage loolu du métti loolu du métti kon loolu buñ ko defee rek am na lu tax ñu dem di ko def kon loolu moo tax dayra boobu jóg comme nag dayra boobu nag dem nañ ba yàlla dogal na la ca sëñ Cheikh bëggoon amu waaye téewul ba tey liy doxal Touba moom ci dayra ba lay sosu taal boobu sëñ Cheikh taaloon bañ fay ko nag yàlla dogal na Serigne Touba joxaat nañ ci xeli nit ñi ñu jéem a xambaat taal ba mooy lan mooy Touba ca kanam ji dara weesu bu ñu gëmee suñu bopp bàyyi parparloo gi sëriñ si it ñi nga xam ne ñoo nekk fañ toog ñu di leen jox li leen di jox ñoom ñëpp ñu ñëw jëmmal sëñ Touba te muy dëgg danañ am machine bi daayira yëpp ñu actiwaat ko ci Touba ci kanam su ko defee lu sëñ bi soxla foofu la kuy jël audience sëñ bi foofu ngay dem lu sëñ bi wax ci kuréel googu la koy jaarale danañ ami rajo ami télé. kon sëñ bi këram du nekk ay buntu bu kii waxee lii kii dindi ko bu sëñ bi waxee lii bu ëllëgee ñu wax loo ko lee kenn du jaay sëñ bi ci képp ku fa bëgg a ñëw bu leen amul intérêt di la téye kon ci kanam dara weesuwul nan fa daal di dem daar daar bu ñu ko defee dix ans danañ gis résultat tant que defuñu ko nag coow li dana bari te coow jégunu kat te yoonu mu wër te coow ndax koo xam ne si jëf lañ ko xamee woon kat tey bu demee ba dese aw coow nag xamal na deltu na gannaaw loolu kat mooy li am lu nu dal looloon ko teg ndax tey ji bu ñu ci demoon tey activé ci daayira yi ñu taxaw taxawaay ba sañ Cheikh taxawoon ñu jël borom xam-xam yi teg bañ koo teg ci ay parparloo bañ koo teg ci ay sëriñ ak dara jël xam-xam jiital ko dana mën a dimbali sëñ Tuubaa ci njàngam yi nga xam ne moom la bëggoon a yaatal ci biir réew mi def ko darul xalimal xabir def ko ci sëñ kër sëñ bàkki bi te ko darul moti fenn fu ne lañ fa war a taxaw ñu taxawal kenn du laatu ci dara danañ mën a taxawal dëkk bi ci wàllu assainissement kenn du faale ab maire ci dara loolu yi daal mooy li nga xamante ne si tey lu ñu gàllankoor moo ñu gàllankoor màggalu Tuubaa gi képp buñ leen ko joxoon bañ organiser ko xam-xam baa ngi fi danañ ko mën a organiser ci loxo te recette bi ciy génn du dugg ci loxol état bu ciy def lu ko neex di wax lu ko neex sëñ Muntaxa yi danañ ko mën a teg ci condition yoo xam ni nii kenn du fa dem di rajo loo ku ko bëgg a gisati da ngay jaar ci kuréel googu mu noppalu nu noppalu dëkk bi dox ñi nga xam ne ñoo yore daara di jàngale yéen daayira boobu daal di leen di taxaw kenn ku ne sa daara ñu defaral la ko ba mu mucc ayib. te xam ne kat tubaab bi li bëgg mi ngi koy def te li mu bëgg mi ngi ni mu koy defee mooy ci jiwu lislaam bi jiwu yoonu murid bi la bëgg a yàq ba bu ëllëgee murid yi doon am gàncax te jël na ndaw yi def ci ñoom ak yokkat def ci ñoom ak weddi te ak nit ki ak taali bi jógee ci moom du tudde sa dara yàq na it ñi nga xamante ni si ñoom la ñuy wax yenn ci sëriñ si ba mënatuñoo defar kenn boo yàqee kenn nit ñi nag ba mënoo defar kenn bu ëllëgee koy defaree du am te ku ñuy defar du fi am loolu mooy yàq jiwu ndax yoon wi lii fi doxal ko su néew jiw wu njëkk wanu jiwoon moo moo tax yoon wi di dox mu nekk ni waaye jiwu wii ñëw ëllëg nag bu fekkente ne yàq nañ ko ci njëlbeen gi ku ñëw yor alal ñu fat la seytaane sa ñëw ñu fat la ku yàq lislaam ñu fat la loolu mooy yàq jiwu lislaam ndaw yi ci bare bare fi mu ne ay caaxaan ki tappale la ñuy topp loola nag mënta ànd ak gëm sëñ Tuubaa lii fi des ak suñu néew di góorgóorlu ci daara yi di ñett ñett di jàngale di def ay internet yàlla tax ñii yàq leen ëpp fuuf bu ñii di gas ñii di suul nag bu yàggee pax du bari pax du am loolu lépp ñàkk organisé ñu ko teg te bala ñoo génn ci situation yi dañoo organisé buñ bëggee nit ñi respecté dañoo organisé feeg demuñu ba président de la république buy ñëw Touba jaar ko ci commission bi bu dikkee ñu àppal ko la muy wax ak sëñ bi ak fa muy wax ak sëñ bi ñëpp teew ñu médiatiser ko nga xam ne du mën a jënd sëñ bi ci lenn du mën a jënd kenn ci lenn du mën a jënd kenn ci lenn leen bëgg ci Touba duñ ko am sëñ Touba nag la mu bëggoon ci Touba moom am na ko waaye nun li nu bëgg moom lañu dul am nëgë ni waroon naa fekk nu weesu fii bu yàgg waaye buñ toogee ba fi ne lu ñuy soxla dañ koy laaj ay ay loxo ak di dugg ci kër ka mënoon mënatul duutu mën a joxe ñu jël ko taxañ sànni ci àll ba dox bi day yeex te génération bii ma gis tubaab yi di ko parawaare bis bu ñu màggee laaj laaj sax boo ko defatee kenn duutu la ko jox ndax duñ fa fekk gëm sëñ tubaab duñ fa fekk njàngum alxuraan yoon yi mbooleem sécurité sécurité bi nga xam ne moo ko moo ko moo ko doon aar baddi nañ ci lu bare bare bare loola nag maal organisation koy def kër sax buñ koy buñ ko organisé wul dox waxuma laaj du toll nepp dëkk dëkk boo xam ne nañ ne mooy deuxième ville ci Sénégal kon loolu na ñëpp dugal ci seen bopp yi xam ne li nu gàllankoor lool la bu ñu bëggee mucc ci daal sëñ bee ko wax ak ndax waxu kook ndax war naa wax ak yooyu danay organisé wu. génnee pouvoir yu ndaw yi ci biir Touba yëpp te xam ne ñoom kat dara ñuru leen lu dul seen bopp. ndax li naqari sëñ Tuubaa ci dëkk bi lépp danga nga ciy dégg seen i tur Sall Ndiaye mii nga xamante ni sii moo nekk ci biir Touba di Sénégal di ànd ak njabootu Serigne Touba gi jigéen gi ndax bu ma nee njabootu Serigne Touba gi jigéen gi mooy ñi ñuy wax ay sët rek man ko sant Mbàkke jàpp naa ne rek sëtub Serigne Touba gi xamuñu la leen yàlla sant xamuñu war ma dañ war a jox sañ Touba di def ay takk ay tànn biir ci biir Touba ak di def ay takk ci biir Touba di teg ay musique góor ak jigéen di jaxasoo ñuy tëgg di tàccu di fecc loolu xam ngeen ne Touba mérité wu ko kon buñ cay dégg ñooña ñu koy woote jël saay Sall Ndiaye dugal ci seen biir muy def manière góor jigéen di xàqataay di taasu di tëgg te mu taxaw fii wax ne ay mbàkke mbàkkee ko yóbbu ca màkka ay mbàkke mbàkkee ko tabaxal kër ñu génnee ko wér ay étage étage boobee nag ku ko mën a defal kuy mooy yàlla ci biir Tuubaa war koo mën a defal ki yor daara di jàngale te daara yëbatu bu set nga gis ne liñ bëgg mënuñu ko am fuñ leen di jàngale alxuraan sax ndox lañ leen fay taajal teg teg ca pat bu màggat buñ leen di jox dañ leen di sarax di jël ay saay-saay di leen jox ay millions ah ba di leen tabaxal kër di leen yóbbu màkk te daara yi soxla ko foofu sëñ Touba nekkatu te loolu bu ñu organisé woon loolu lépp danañ ko fa xeex ba mu jóge fa Touba am na fa ñu sonn de moom ko fa nekk ci sa ulalaay nekk fa ci ulala waaye am na fa ñu sonn ñoo xam ne ci bala ñoo lekk ab peel lañ yor dem sëkki ngi ngénte luñ gis taxaw dëj buñ gis taxaw door a am lu ñu ci seen i te ñi nga xamante ni si ñoom lañ fa fekk si te tax day bu ñu dundoon lislaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci leel miskin wala ñu dund ci sëñ Tuubaa ci solidarité te xam ne sëñ Tuubaa daf daan liggéey loolee dana wàññi ko waaye loolee lépp nag bu fekkee kenn ku ne sa pouvoir bopp nga yor ak sa sañ-sañu bopp da nga sànq taalibe yi da nga sànq nit ñi duñ am sëñ Tuubaa duñ am lislaam te ay coono la ñuy dëkke te walañ sa yaasu bi lay ku ci faat boo xefee da am lu la naqari ci sa bopp kon daal lii mooy li nga xam ne tey moom laa bëggoon a indi ci ñaareelu phase bi doon leen ko leeral ngir bëgg nit ñi bàyyi ko xel maa ngi leen di jox dig daje nag ci beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.